école bu yàgg a formé ay ay ay kii la ay anciens école boo xam ne def na fi lu ne ci jaloore école boo xamante ne nii euh, kenn dootul nettali niveau am fii ci Sénégal nga xam ne preuve bu ne def na ko fi tey nag dañu ñëw woon leen état wu Lamine Sem Lamine Senghor état bu ñaaw lu kenn warul foogee toog ba xalaat ne Sem Lamine Senghor war na mel nii école boo xamante ni xàmmeetuñu élève xàmmeetuñu mool école boo xamante ni xàmmeetuñu defarkatu buum xàmmeetuñu élève école boo xamante ni xàmmeetuñu jaaykatu ndiir ak élève ndaxte ñu ngi fiy gis lu ñaaw ñoo xam ne bu ñuy dem géej ci bunt bi la ñuy jaar génnee ci miir ñoo xamante ni bu ñuy dox seeni soxla ci digg école bi lañuy ñuy traversé élèves yi di def cours ndaxte gis nañ fi koo xamante ni buum la lonkoo jaar fii ci digg école bi mel ni yoon lañ ko def te gardien bi bu taxawee wax ku nekk taxaw di ko tontu gardien bu taxawee génnee ñeneen ñëwaat ci côté bi jàll mel ni luy kookali aussi école boo xamante ni jaaykat yi dañuy ñëw ba si digg école bi di seetaan élèves ni ñuy defee EPS école boo xam ne da ngay jékki gis koo xam ne xamoo fan la jóge ci Sénégal xamoo fan la jóge ci àdduna bi ñëw rek toog xamoo lan la wut si mu nekk loo xam dañ koy ñaawlu dara warawlu ko nak ludul muru école bu bu bu bu baxut mur bu daanu mur bo xamne ne bañ koy tabax ba tay yag na lol munul ag ci école bo xamanteni centre d'examen examen la ndaxte dañ fi def examen bfm ak aussi baccalauréat mu nek nak lu ñuy ñaawlu kep ko xamante ni gis nga lu mel ni nga ñu bala muy ñaaw école bo xamanteni classe dem nañ ba classe yi dem nañ bay toj ku nekk di jël xeer di ko sànni ci biir école bi école bi amatul sécurité muru école bi baaxul classe yi baaxul si CM Lamine Senghor école bi bëri na mbalit ndaxte élèves yi bu ñu defaree ñee ñëw këpp fi seeni buum am ñoo xam ne ay dépôt buum lañ ko def muy lu ñaaw waa koñ bi rek nag doyut pour ñu wax ko waaye tamit waa dëkk bi pare nañ pour dénoncer lu mel nii parents d'élèves yi wax nañ ba sonn li leen war yëpp wax nañ ko waaye nag c'est à nous ñun ñun waa JIFA ñu ñëw def suñu liggéey def suñu liggéey nag mooy ñu wone ko joxe ko ba ñëpp teg si seen bët ñu xam ne lii dafa ñaaw ndaxte Sëñ Lamine Senghor mérité wul état bi wax fa yàlla Sëñ Lamine Senghor mérité wul état bii mu nekk nii tey kon nag mbokk yi képp koo xamante ne ni autorité nga si dëkk bi ñu koy commencé ci maire ñu koy commencé si madame le maire ak képp koo xamante ne nii jaar jaar nga Joal wala nga dëkk Joal wala nga mën a apporter Joal dara ñu ngi lay tàllal sunuy loxo parce que Lamine Senghor ñëpp la fi nekkal waaw lii rafetul ci image ñu koy gis fu nekk ndaxte euh, cadre bu ne jaar na fi cadre bu nekk jaar na fi donc euh, autorités yi politicien bon volonté yi ñëpp ñëw leen ngeen jàpp ci lii parce que école bi dans quelque mois dañ fiy passé examen te dafa war a nekk ci condition yu baax ma ne liggéey ñi ko war a liggéey nañ ñëw te bàyyi dawloo bi ñu leen di dawloo lii def ñoo naqari ndaxte ñun ñii ñëpp fi lañ jaar ku fi jaarul nag xamoo ni seem meloon démb yow doo ko comprendre mais seem dafa am nu mu meloon démb am niveau bu mu yegoon tey jii suñu rak a fi nekk te képp koo xamante ne jaar nga seem yàlla def la li nga doon tey bu fekkoon ne seetaanoon nañ la Do yegg fi nga yegg donc ndaw yi fi nek euleuk dafa am luñu wara neki dañ ci wara amat benen Lamine Senghor bo xamne ne la joge dañ ci wara amat benen beneen sera Senghor dañ fi wara amat keneen ak keneen ak keneen bepp cadre war nañ ko fi amat te élèves yi sen xel bu dalul wax deug fa yalla duñu mëna am liñu bëgg duñu jang normal duñu nek da ngay nek si école di jang di def cours ay nit nek si biti di xagn ay xeer lool dafa ñaaw kon nak ñu leen di wo dem nañ sax bay dégg ne am na ñoo xam ne bu guddi jotee dañ fiy fat ay jigéen jaare ko ci ginnaaw miir yi waaw da ngeen jëf merci beaucoup bi ñu doon def examen daaw da doon taw léegi ndox mi di wàcc suñu feuille dañoo obligé buuxu si benn rangée ñu toog par deux par trois. asalaamaaleykum waa Joal Fadiouth ñu ngi leen di nuyu yéen ku nekk turam ak santam moo ñëwoon fii tey si Lamine CM Lamine Senghor bi ànd ak euh, suma naataangoo yi ngeen gis nii suñu collègue yi ñun la bureau APE bu CM Lamine Senghor man maa ngi tudd Abdou Ndiaye man maay président APE bi. en même temps nek délégué de quartier aussi bu Tilène si école bi fi mu nek ni bon soxla ndaje bi nak li tax ñu woyonté won ko jamm ak salam rek la nek au passage aussi ñu ngi nuyu ancien yu CM Lamine Senghor amical bi su ñoom aussi gis nañ vraiment sen taxaway ci école bi gis nañ ñu siy participer gis nañ sen seen yëngatoog tout ça xam naa ne ñoom lii xew fi dama ragal né ñom amuñu si won ki bon ñu koy di len nuyu ci sen turu présidente euh, madame Aw bon école mois de septembre ba lañ ko bi fi bu ngeen bi dañ au mois de septembre au mois d'octobre, travaux yi ñu avant lool buñ ko ciment bon par étape lañ ko doon andi andi ciment fer au mois d'octobre, ñu travaux yi travaux yi aussi travaux yi muy daw travaux régulier parce que tey ñu liggéey une semaine bi nga toog deux semaines doo leen gis léeg-léeg loo xam li si kii bi ñu demee nag affaire bi jaaxal ñu aussi ñu continuer gis aussi que école bi comme école bu mag la te amul sécurité ñu dem ba mu yàgg gis miir bi mu commencé daanu surtout fatal bi nga xam ne moo ngi féete booru géej alors ñun aussi ñu ñëw interpeller autorité école bi bu ñu interpeller aussi principal bi moom aussi ñu laaj ko mu wax ñu aussi moom ne ñu nag moom aussi moom constat bi ñuy def nii moom la def ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifaam pour yëgal leen état école bi ni mu demee ñoom aussi bi ko bi mu leen ko yëgalee ñoom aussi yëgal nañ ko ñu ko war a yëgal moom nee na demoon na ba si biir sax entrepreneur bi ak maçon yi daan na doon jokkoo ak ñoom mais dem na ba si biir mënatul am entrepreneur bi mënatu ko gis bon mënatu ko gis te bu ko wooyee téléphone mënatu ko jot mu wax ko ay kilifaam kilifaam aussi même chose loolu aussi yu jaaxal ñu looloo taxoon ñun aussi vraiment ñu woote nag ñu ne APE bi ñi nga xam ne xëy na jot amul affaire yooyu ñee ñi si mën a dimbali ñu ñëw ñu waxtaan si lancé ko xëy na bu ñu defee loolu nit ñi bu ñu gisee lii mën nañu dimbali si miir bi parce que école bu toll nii nekk si digg dëkk bi si xolu dëkk bi amul sécurité sànq bi ñuy yii nii xëy na li ñu wane ginnaaw moo am mais am na ko def ku yor ay ndiir ak gerte yooyu di ko jaay bu jaaroon suñu kanam sax buñ ko jëloon xam naa ne buñ ko gisee loolu la doyoo te école bi centre d'examen la dañ fiy def bac di fi def BFM te bientôt examen ñëw école boo xam ne fu neex waay mu jaar ñiy defar buum nii ngeen di gis nii si ngeen gis noonu ñu jege ngal bu ñu defaree seen stock bu ñuy jaay au lieu ñu jaar si yoon ba si biir école bi la ñuy jaar dem dem si tëli bi teg fa ñiy jëndi ndekki bu ñuy jëndi ndekki nii lañuy jéggi si école bi dem tëli ba jëndi ndekki fi élèves yi nekk bu ñu paree ñiy jaay ndox man sànq bi ma njëkkee ñëw ni avant ñii di ñëw gis naa fi ku yor bidon bu jaune bu mag di di jéggi tëli bi pour dem wuti ndox bu pare fii te yoon bi nekk ne le suñu gannaaw nii ñoom filmé nañ ko kër yi den ak moom nii bokk ci leen nii sës si école bi rek miir bi foofu ñu daaneel kër yoo xam ni léegi ñoom waa kër gi sax bu leen neexee ñoom ñuy dugg si biir école bi di fa sëlmoo di fa sangu comme amul kii mbala kër yi gis ngeen nii si gannaaw nii miir bi dañ ko daaneel miir baa ngi nii ñu daal kër gi dafa sës rek xale yu ndaw mën nañu ñu nekk ñu ñëw fii di dugg si biir école bi di ko def fu ñu kër yooyu sës noonu ñaari fondation classe lañ fi defoon ñun sax waxatuñu fondation classe yi mais miir bi la ñu bëgg vraiment ñu dimbali ñu si bu ñu su mënee dimbali ñu sulu miir yeeg école bi am sécurité école boo xam ne fu neex waay gardien bi xëy na dina si ñëwaat si yoo xam ne moom moo ko gën a maîtriser su ko expliquer dina gën a leer seen bopp ak ñi nga xam ne aussi que ñi ñu bokkal ñëpp ku ne nga am li nga siy dolli mais daal li ñuy ñaan mooy que ñu dimbali ñu si miir école bi balaay examen yi examen yi bientôt lay mu ñëw mois de juillet examen yi commence si centre bu mag la ñaari centre la day accueillir bag day accueillir BFM te si digg dëkk bi la nekk fu neex waay jaar fu neex waay génne lu la ne guddi nag bul xam liy xew ci école bi loolu gars yooyu moom dine comme moom mo nek ci école li lancé encore une fois dañuy ñandé ñun xëccu xeexuñu xuloowuñu dañuy wax rek li fi nekk di ñaan kilifa yi ci dëgg bi buñ ko déggee bonne volonté yi autorité yi politique yeeg ñeneen ñi nga xamné aussi ñom xeyna seen loxo jotna seen gannaaw mbala ak seen relation mën nañ dimbali nu ñu retrouver entrepreneur bi ak ñi ONG peut-être ñi doon def kii bi ñu mën a ñëw yeggaleen ñu mur bi ñu ngi leen di ñaan di ko wax waa amical bi amical bi dama ragal ne ñoom yëguñu léegi buñ ko yëgoon ñoom ak seen yëngu-yëngu yi ñuy def si kii bi yaakaar naa ne kon suñu solo fañ na madame la présidente appel baa ngi noonu ñuy lancé anciens dimbali leen ñu si yéen bu fekkee ne même yéen mu noonu yéen ak seen relation ak connaissance yeeg autorités yi jar fii vraiment bu jaree saisir ngeen ñëw ñu ànd ak appel bi ñu dem toog yéen lu ngeen ñu su man daal moo ñu ngi leen koy ñaan ngeen dimbali ñu si daal loolu daal moo nekkoon li nga xam dal mom moom la ñuy lancé di len lancer war encore une fois vraiment di ñaan yalla dal ngeen ñu dimbali ñu mur bi mëna yegg mu yegg rek bala examen yi ñew parce que principal lu nekk dañ na ko bind na def na fu nekk mais mënu ñu gis nga miir yi classe yi sax gis nga yele classe ba bu ngeen ko filmer ngeen woon len amul ardoise ben part amna prof yu ma wax ne ma ngi tok ni ci biir école dañuy def cours des fois xalé yi dañuy tollu ci biir di sanni ay xeer di sànni ay xeer man du benn prof wax na ma ko du benn du ñaar prof yu bëri ñoom ñoo ma ko wax xam nga loolu kañ école boo xam ne amul fu la neexay xale dañuy fo am na ñoo xam ne sax dañ koy def question saboté di toll foofu si biti di sànni ay xeer boo fi gaañee nit xamoo ko parce que koo xam ne xamoo fan la ki sànni xamoo fu mu toll bu sànnee mu gaañ nit doo xam kan la vraiment ñu ngi ñaan ndimbal daal ndimbal daal la ñuy ñaan. bismillah asalaamaaleykum waa population Joal Fadiouth ak àddina bi yëpp laay wax. man maa ngi tudd Soxna Loli seen ne madame Sagne bokk ci bureau APR bi di trésorière bi li ñuy wax rek mooy wax ji du gudd suñu mur école bi la ñu bëgg bu ñu ci jàppale ak ñu dimbale ba suñu doom yi mën a concentré wu ci li ñuy jàng parce que xale yi dañ nañ kumpa dañ kumpa boo xam ne bu ñuy jàng sax dégg bur dootuñu concentré wu ci li ñuy jàng ñu ngi bëgg a xool li xew ci biti te école bu amoon sécurité loolu yëpp du am kon nag bu ñu gisee lii xew ci école bi ñu koy ñaan parents yëpp ñu jàppale ñu ak autorité yi ak ñi nga xam ne ni ñoo génne ci école bi doon ay cadre parents yi tamit ku ci sa doom di jàng fii wala nga jaaroon ci école bii nga yàlla baaxee la nga mun ñoo dimbale nga jàppale ñu te yàlla rek tax bonne volonté yi kon nag li ñuy wax du gudd loolu rek la ñuy sàkku ci nit ñi ndax école boo xam ne béy yaa ngi jaar jaaykat yaa ngi jaay ku nekk sama classe nga xam dañoo tayal bu ñuy dem marché wala ñuy rooti fii la ñuy jaar kon bu ñu gisee lii war ñoo xam ne oto bi école bi amul benn sécurité kon nag li suñu suñu doom yi fi ñu nekk ndax ñoom li ñuy passé seen école bi moo ëpp li ñuy passé ci kër yi kon bu ñu amul sécurité ci école bi du ñu am sécurité fenn kon nag ñu jàppale ñu jàppale suñu bopp ndax fii lu fi waaye def sa bopp nga ko defal ndax boo fi amul doom am nga fi jarbaat wala sët wala nga mus fee jaar kon lu ci waaye def sa bopp nga ko defal kon nag ñuy ñaan ñëpp jàpp si bu ñu gisee lii ñu xam ne école bi xale yi amuñu sécurité maître yeeg principal bi gardien ñëpp sonn nañu waaw kon nag nañ ñu jàppale te yàlla rek tax léegi képp fu képp fépp fu waay nekk di gis lii di ko déglu te xam ne sa njëriñ la wala sa njëriñu ndax sa doom lu mu doon ëllëg rek suba yow la kon nag suñu njëriñ la ñun ñëpp ñuy ñaan yàlla ku ñu ci mun a jàppale ak autorité yeeg monsieur madame le maire rek ñëpp ñu jàpp si xool école bi ni mu mel ñu dimbali ñu sa yàlla rek tax waaw may jéggul nag ci kàddu yi wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo bi asalaamaaleykum délégation bi. ña ngi leen nuyu kenn ku ne turam ak santam di leen siyaare di leen baalu ak di leen baalu ak yàlla na yàlla boole jéggal liñ li ma rek laay waxaat école bi moom man principal bi gërëm naa ko baax a baax ak ak ñi nga xam ne ñooy eh, yi ak prof yi fi nekk yépp ndax vraiment école bu toll nii mel nii ngay dund loolu boole li la neex ak li la naqare yépp ci kenn xamu ko da ngaa muñ man nak man mi nga xam maa fi nekk man man xam naa ne man li ma sama coono moom ku ma ko waxut it xam nga ko 23 heures nit ñi dañ fiy jaar di dugg di génn doo leen man a génne doo doo xam ko boo génnee kii mu jaare nii nga génnee kii mu duggee nii te yooyu yëpp école bu ñàkk am miir bu baax moo ko waral xam nga école bi ni mu mel nii waxuma pour dëkk bi waaye école bi école adduna bi yëpp la parce que tey boo doon wax prof yi fi nekk kenn ku ne fa nga dëkk ak sa fa sa morom dëkk sore yoon na ca lépp njàng leen boole te it wax dëgg yàlla bàyyi sa njaboot ñëw seere njabootu jàmbur ca boo tëddee sa xel du dal ndax fa leen yoore sa xel du dal neexut man mi fi nekk ak sama njaboot te gannaaw yàlla yàlla daf may sàmm sàmm sama njaboot rek duñ dimbali waaye xamal fii ku fi nekk sa njaboot di fi yendu di fi yeewoo metti na ganaaw looloo tam ñi nga xam ne ñooñu mën a dimbale ñu dooli ñoo dimbale ci yàlla tax dimbale ñu suñu ngir yàlla ak yonante bi képp koo xëy man nga cee wax wax ju rafet ba nga xam ne liñ ci bëgg daañ ko am nga wax ko ci ku ci mën a dimbali sa poos nga dimbali ci yàlla tax képp koo xam ne mën nga cee def ñaan nga dool ñoo ñaan ngir yàlla ak yonante bi ndax ñaan du tuuti ndimbalit du tuuti ki amul bay di ñaan dimbal loo ko dimbalee du ko xeeb ñi nga xam ne nag ñoo ne ci koñ bi ak waa dëkk bi yëpp xam nañu école bi ku fi jaar di jaar rek ni mu mel neexu la ñi nga xam ne ñoo ne ci koñ bee ni mu mel neexul leen ndax école boo xay huit heures ci bu gaa yi bu élèves yi ñëw huit bu ñuy ñëw fii la ñuy fekk xaj yi ñuy tëdd ci terrain bi balaa balaa di sept heures footballeur yi bu ñuy dem xaj yi ñëw nañ tëdd guddi gi ko doo dégg damay toog ba mujj bu réew day bare damay ubbi sama néeg génn sànni ay xeer ñu door a tasaaroo ci loolu lépp ñàkk miir bu baax la ak ñàkk sécurité sécurité nag buñ koy wax wut gardien pour wut sécurité la mais li ko la ni mën naa ko sécurité da ngay wax munuma ko sécurité yalla nak moñu ñuy sécurité diñ dimbalé rek ba li ñi diñ ko yalla diñ ko ñu di tek ci def ci luñu man ñi nga xamni ño fi ñew nak guddi gi gi mom luñu man dañ ñu ko dimbalé ndax luñ fi nek lo xëye lu yaqku la ku fi nek nek nit ñi ne ci koñ bi di dell di xalé yu goori koñ bi luñ fi gis lulul nonu dañ ci taxaw mais buñu paré def dañuy ñibbi ma fi dess man mi xey ma fi dess nak nag fi daj man xam naa ko mais nag yàlla baax na yàlla na yàlla doole dimbali sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp na ñëpp doole dimbali ngir yàlla ci suñu école bi liñ ci bëgg ñu am ko ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. salaamaaleykum salaamaaleykum waaw ñu ngi rafetlu teewaay bi ñu fi teew nii pour wax si problème école bi waaw ndax comme niñ ko mën a waxee rek waaw ñun Joal fi leen dëkk fi leen màggee fi leen waaw école bii nii mën nañ wax ni suñu foo yëpp fi ko defee fi leen basket fi leen footballé et tout waaw mu doon école bi nga xamante ni nag mën naa ni li mu génne ci ay notable ci Sénégal kenn xamut nu mu toll waaw école bu yàgg la waaw ba tax na tamit tey buñ gisee mu mel nii du doon li nga xamante ni nii lu ñuy lu la waaw li moom xam nga metti na nu metti metti ba si kanamu yàlla waaw di ñaan nag waaw autorité yi ak euh, bonne waaw ñu jàppale nu waaw dimbali ñu té yalla tax fermel ñu sun école bi ba mu mëna am sécurité ndax comme niñ ko mëna waxé rek éducation boy xol moy moy lepp ci aduna moy njàng. wa té fi ni kër éducation la kër gi nga xamanteni ni day yar ay doomu adama kon ak nu mënti démé taxawu ko taxawu kër gi lu war la defar kër gi bam baax lu war la waaw ndax ñi fi joggé ñëpp ay produits lañ yi nga xamanteni ni pour ëlëk la pour Sénégal waaw kon fii dañ cee war a taxaw ci bépp côté pour mu baax ndax xale yi fii jàngee ni leen di éduquer éducation bi mën a mën a mën a dugg seen bopp bu baax waaw ndax boo toogee ci école di jàng ku fu neex waaye jaar ah xale bi toog di jàng du concentré wu sax normal mën a jàng euh, normal waaw ñu ngi ñaan nag bu baax a baax li mu waroon wax yëpp mën naa ni président wax na ko way dañ siy barkeelu rek waaw di ñaan bu baax a baax waaw bonne volonté yi ak ñu nu mën a dimbale pour ñu defaraat école bi waaw ba xale yëpp mën a jàng waaw xale yëpp mën a toog jàng bu baax a baax a baax jërëjëf. salaamaaleykum gars yi ma delluwaat di leen siyaaraat rek di jégaluwaat nag xëy na kàddu yi mun naa bañ a gudd ndax xam naa toogaay baa ngi bëgg a yàgg waaye une bonne fois rek ñuy waxaat te li ñuy waxaat tamit ci comme miir bi la rek ba tey fu ñu nekkate bi miir dong la ñuy wax ku ñu ci dimbalewaat rek gën cee taxaw ci miiru sees bi comme ni mel nii rek ndax xale yi mun a am sécurité sécurité bi daal la ñuy ñaan pour école bi parce que tamit euh, yaakaar naa fii ku fi sa doom di jàngee rek yaakaar ngaa ne mu ci bon condition te fii bu boo fi ñëwee doon parent d'élève gis miir bi ni mel war ngaa xam ne sa doom moom nekkul ci benn condition bi kon nag bu bu méttee ba demee nii rek ñuy ñaanaat ñuy ñaanaat dimbal ci autorité fi nekk rek pour ñu mun a dimbale rek ba miir bi miir bi yegg rek ba xale yi mun a nekkaat ci sécurité bu baax rek parce que saa yu toll moom doy na trop ñun ñu fi xëy di fi yendu xam nañ li li gars yi daj ci biir sees bi ñu ñu fi fanaan xam nañ li gars yi daj fii parce que tamit fii moom comme amul benn bunt rek pour nit yàqu fi dafa yomb te buñ fi yàqee tamit suba dañ fi ñëwaat rek di defaraat kon balaa defar be da am na ñu fexe miir bi yegg rek ba jéem a xool solution niñ ci mën a réglé waatee kii rek ngeen baal maaq pour kàddu gi bañ a sori jaayeen bi